asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nuyu nañu képp ka nga xam ne yaa ngi toog tey safoo di seetaan télé Sénégal télé Sénégal nag tey da ñëwal fii nga xam ne mooy plage yi Besseyaawo dañuy dégg chaque jour jeunes yi naan fël-fëlaale rëkkante dañoo bëggoon xam lan mooy fël-fëlaale ah fël-fëlaale sànnee ko def ba mu baax rek duy fël-fëlaale waaw man daal li ma ko déggee daal laa laa xamee yaa ma gën a boo defee ba mu baax def sa gërëfa da nga kaa war a fel hmm. comme ça nga ras ko nii li ma def nii lan lan la. filaale laa ko tuddee. Ah. waaw si. loolu balaa man dama dégg ñu koy wax rek mais je sais pas définition bi quoi. ah filaale mooy sànni ko def la neex mais nag bu ñu koy wax pour Taïfine ñoo tax. Ah. waaw poids lourd nañ xam seen ko moom. filaale la terme bu bees la xale yi di wax filaale comme nii rek def lu la saf waaw. Ah, dañoo bëggoon xam lan mooy filaale. filaale am daal. luy filaale. fëlaale non yow. ah loolu moom daal sànnee ko daal xam naa ci dara daal. fël ah. fëlaale waaw lan mooy rëkkante. rëkkante. Ah. laaj ko jëkkëru jabar yi borom jabar yi lañ koy laaj. la laa si xam mooy mooy jiin yooyu yëre yooyu tubéy tubéy di fulaal di def nii <laughs> yooyu laa sax. salaamaaleykum. ginnaaw ma sant yàlla julli seen naa ngi sant samay ñaari waajur. lan mooy fulaale. non man dox ma si yooyu nag man xamu yooyu noonu quoi. Ah. waaw kaw kaw ba laa jógee nga ni. fulaale yóbbu ci ndox bi. <laughs> nan nii lii rek mooy fëlaale lan mooy rëkkante ah xaw ma concept yooyu man duma koy dund quoi parce que xaw ma ko xaw ma ko xaw ma ko ah mooy comme nii rek xam nga rek def ba mu baax ñëw fii def relax xam nga fel felaale yaa ma gën a xam nu ñuy sànnee ko i yow ñu sànnee ko ba toog fële sànnee ko nañ ba doyal lan mooy rëkkante <laughs> non ci kanam la rëkkante rëkkante bi commencé ci kanam la waaw ah. lan mooy fël-fëlaale. ah xam nga rek kilo. léegi luy rëkkante. kii boobu moom xaw ko dëgg yàlla. waaw fëlaale mooy def ba baax rek dafa xew si jamono def ba mu baax. Ah. waaw. luy rëkkante. rëkkante ah rëkkante foor na de nga am sa gel waaw ngeen di rëkkante rek loolu doy na. loolu mooy rëkkal merci beaucoup ëpp na yaa ngi koy bu baax fulaale nii rek ñëw plage ñu xam nga ñu fulaale moom sañ sa def ba mu baax gàddu suñu doom ñëw fulaale moom def sa sañ bu baax rek ñu fulaale sànne ko ba muy moom rek ah. waaw looloy fulaale waaw gis nga waaw luy rëkkante rëkkante ah loolu nag moom sama xam-xam yeggul foofu ah. noonu dañoo bëggoon xam luy fël fulaale ah foofu laa la sànneeku def lu la saf. tamit ah gars yi ñoo koy génnee ak thème la. mais Gambie fël-fëlaale am na waaw sànneeku am na Gambie. waaw waaw luy fël-fëlaale. <laughs> luy naa fël-fëlaale. lan fël-fëlaale. Ah, xam nga fël-fëlaale rek dafa nekk moo boo xam ne ñun seen dañ koo tàmm daal ay ñoom damay mujjee gaañu rek. nga gis xam naa damay mujjee gaañu rek ay termes yooyu. lan mooy yooyu yooyu noonu la damay mujjee gaañu. Ah, xam nga rek ay termes yu ñu la rek. di mujjee mbëkk yaa ma gën a xam. tamit dina de daal. Ah. waaw daal. ànd ak soxna Seck mooy loolu. Ah. pour relaxer tuuti xoolaale waali tuuti xam rek yaa ma a xam ci jàmm. yaa ngi ci jàmm. yow lan mooy fël <laughs> ah, baax. Ah. Mm. nii nga koy dundee. ah nii de laa koy dundee sama caméraman jëlal ma xale bi nu muy dundee bi mën na ne. ëpp na <laughs> ma xale bi lu mu sañ see. <laughs> ndax xale laa wala mag. waaw da ngay laaj. Ah. wala laaj. nooy dundee été bi. waa gis nga def sama robe nii rek def sama blonde. Uh-huh. waaj ci plage bi ak sama bébé. esa <laughs> naaj ah. dundu soulagé. dégg nga gis nga. jëlal ma sama caméraman nu muy relaxé. merci beaucoup. nooy dundee été bi. waa gisoo ni nii rek def relax def toq débardeur ak ji def suñuy ballerines. fas yéene ñëw ne rek xool géej xool géej waaw. été bi nag nooy dundee été bi été bi. nii nag filaale nii ni ko booy defee loolu la ñuy wax ah. nee waaw ma gën ah. ah. nii nii daal nga ko dundee tey nii nga relaxé. waaw waaw sama caméraman jëlal ma ku baax nu mu relaxé. <laughs> yow sànnee ko woo sànnee ko woo. man nooy dundee été bi yow. waaw dund été bi simple def couleur été nice yaa ma gën a xam daal def lu tubaabe. comme li ma def nii rek. comme li nga def nii sama caméraman dama bëgg nga jëlal ma xale bi nee comme lu mu def nii nii lii daal lay dundee été bi relaxant. waaw waaw merci beaucoup. ok léegi léegi ngeen naan ay fël-fëlaale lan mooy fël-fëlaale. ah fël-fëlaale waxin la rek façon de parler la rek. waaw. Ah. mais lan lay lay tekki. ah non man de dama ci topp rek je mais xam naa que tamit tendance wax la et tout moo tax. lan mooy rëkkanti. <laughs> yow léegi yow lan mooy rëkkante. xaw ma xaw ma ko xaw ma ko. mais yéen da koy employé ci seen été. non non man du ma ko employé. Ah. non non. mais na dundee été bi. ça va au calme pépère quoi ñoo ngi si kawam dem plage yaa ma gën a xam waaw ça va. Ah. noo dundee waale bi. neex parce que dama ko bëgg. moo ta fu ma fu ma wootee daal damay bëgg dem mi ngi noonu waaw. nooy bi. cool nice na torop neex na macha allah super été la ñuy dund instant yi ak Wally Seck rek ak le jeune Faramare rek dara doyul bay des. Ah. lan mooy fël-fëlaale. laaj naa loo ko man loolu moom ma yéem. Ah. sama gel sax su may waxal moom danaa ma fël-fëlaale loolu garaaw na de. nga <laughs> ni sa gel su may waxal moom sax danaa ma fël-fëlaale. <laughs> ay kon yes. Ah? ay kon yes kon loolu la ñu dañoo sonn. wàññi. bilaay yoole yoole ay ah, yoole yoole waaw bu sama pësi yu ah. garaaw ay tàngal mant ñu ragaluñu loolu waaw waaw tamit ay ah. aleya coppat sama naan waaw jël mooy lan ay fulaale tufluwaale pët ngamp yi fulaale fulaale mooy lan waaw di naawaale xam di fulaay xam nga yooyu yii xam nga yooyu noonu <laughs> billaay da topp di fulaale ki jar sama bébé